daara moom ak euh, yëngatu daara ku jaar ci daara xam nga ko boo leen sama baat fii di ngeen gis benn ah gis ah? Euh, donc te ci daara laa ko jëlee donc daara ku ci jaara ku ci daar euh, jaar nga fekk jaar bu metti keroog bi ma sëriñ bi dóoree ni ba mu deret yi di nàcce ma daaw dem ci baay pour yaakaar ne bu mu ko wane dina mer génne ma daara ji kontaan ah daal di nga ni ma sëñ si daan yow de am nga léegi teel xuraan yow. de am nga léegi ah yow de am nga léegi teel xuraan yow. donc bon sëñ daara ak jàngaleem daara euh, seen diggante sëñ daara ji ak ndongo yi seen monde boobu ñuy dugg ñoom rek ñoo ko dégg. ñoom rek ñoo ko xam. ñoom rek moo si mu soppandiku soppandiku boo xam ne dina am njëriñ mais beneen doole bu ci dugg foog na am na ay méthode am am na ay jàngaleem yu bees. kenn weddiwut loolu waaye nag bala nga koo natt ci daara ji na nga xam daara ji aussi. addina bu jar a xam la itam euh, ndax par force moom la dund. mooy addina boo xam ne fi ne li ko moom di ko atte dafa bëri. addina internet la addina YouTube addina euh, yooyu ngeen xam yëpp addina jokkalante boo xam ne yow mi koy jokkoo sax neexu la parce que fi mu ne kenn mën a ay doomam. dara boo ko bëgg a mën naa jën nekk ci nekkin boo xam ne yëgoo ko. donc man il faut am benn méthode boo xam ne moom itamit danañ nangu li nga xam ne moo xew. li xew ni mooy àddina si surtout àddina bi nga xam ne moo ilif nit ñi indi nañ ay méthode ne lii ku ko dundewut ku ko dundeewut ak ñun yow yaa àll nga yow yaa bokk na ci euh, comme yow xale yi ci daara yi. Euh, ñoom ñoom xamuñ eew boobu lu muy tekki waaye ñi koy def ñoom xam nañ ko njëriñ bi muy génn ëllëg pour xale bi itam ñoom xam nañ ko waaye ñii xamuñ ko xamuñ xamuñ dara euh, méthode yooyu ñuy rek lañ foog ne mooy àddina waaye méthode yooyu itam seen i gouvernement nañ leen ko donc bon il faut ñu sàmmanteeg suñ gouvernement ak seen i doxal ndax euh, fi ñu bëgg a àgg ci suñ daara yi wane ne ay borom xam-xam lañ ñun tamit mën nañoo seq ak àddina mën nañoo jëflante ak àddina loolu tamit faut nit ñi xam ko ci ñun il faut nit ñi gis ko ci ñun. sëñ daara ak moromu ak ak ndongom ci daara ji ay xarit lañ même lu lu la sa sëriñ bi dóor dóor bu génnee sama xarit man la suma biir la ah su ma sëñ daara bii defoon ma lii moom laa gën a fonk ci sëñ daara yi ma jàngal waaye moom laa gën a bëgg donc am nañu benn euh, intimité boo xam ne boo ci duggut boo boo nekkul ci biir doo ko mun a xam doo ko mun a xam ah sëñ daara boobu sëñ taar xale boobu sëñ bi yeewoon boo demee xale boobu moo gën a bëgg sëñ bi ci ñu ko ah ci ñam eewut parce que mooy secret alxuraan mooy mbootu alxuraan mooy yi nga xam ne alxuraan a ngi koy rabbale diggante nit ñi ak parce que euh, nuurun mu biinun nuurun mu biinun téere leer la téere buy jàngale leer la donc woon lépp loo xam ne jógee na ci daara bi sëñ daara bi dem ci taalibe bi leer rek la koy dolli loolu rek la koy yokk yal na yàlla yokk leen dëgër yokk leen leer yokk leen xam-xam yokk leen amin ya rabbi amin ya